gi ginnaaw bi ñu jullee bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi li ñu fi indi mooy xam nañ ni comme dañoo association bu bees lañu sos indi nañu sunu papier yi ñu war a applier yëpp mais daf ci am benn loo xam ni il ñu waxtaane ko pour mën a finaliser loolu loolu moo fi indi waaw. ndax mën nañu xam loolu lan la. waaw loolu c'est interne ak euh, CNG bi loolu moom c'est du affaire bu bëre mais ci affaire administration kon daal li mën a jàpp mooy norme yi tax combat bi yëpp am yow seen côté matal ngeen ko. waaw eh, eh, ci kàttanu yàlla matal nañ ko waaw. Hmm. nan ngeen nar a waajee nag seen diggante ak Siteu ndax ku ne xam ne ne papa dafa sox lu bees muy écrit écrit nekk loo xam ne lu am solo la ci carrière am muy premier sortie nan ngeen ci dara dugg see. waaw xam nga gone gu juddoo Fass màggee parcelle ñu la wër dëkk juddoo ñaari tali ay pression yooyu moom seeboon yóbbu ko fële waaw soo presque li ko dese ci làmb. Euh, li ci des waxuma ne tuuti na mais bëriwutul boobu bëri mu ngi ci presque est-ce que amul quarante combats wala un peu moins de 40 combats am ay plus de 27 victoires parce que victoire yi mu am dakaar la ñu compté mais làmb ji officiel mu bëri ay CRG bu Thiès match ñu ba ak Cheikh Niang doom Boy Niang am fa 4 victoires kenn boolewu ko ci compte comptable victoire yi bu ko ci boolee am na plus de 27 victoires donc kooku du ay pression leneen liñ ci sof rek mooy ku ne xam ne ni combat bi Pape Dufal moo ko organisé te dégg condition yi ci nar a àndee ak yéen ñu ñaari camp yëpp yéen su côté mobilisation parce que soxla na nan ngeen ci nar a taxawee. ah xam nga ku bëreeg si kuy bëreeg si te moom mobilisation c'est boo nga xam ne ni am nga problème ndax nit ki wax sa baaxu moroom du la wàññi sa baax dara. yàlla ci mbër yi mu may mbooloo si ci la bokk mais suñu côté on va faire le maximum. ba nga xam ni danañu indi mbooloo stade bi incha allah. oui yaa ngi wax sànq ci ci wàllum pression Papa Sow ñu léegi am na expérience ak yooyu ñu gis naa ay événement yu mag yoo xamante ne Papa Sow mën nañoo wax ne moo ciy daan boppam nga xamante ne day ñëw pour mu lucide ba mën na aborder combat wam expérience am bu ñu gis ni mu mettre ko en exergue est-ce que Papa Sow mën nañoo xaar combat bi mu ñëw indil ñu loo xamante ne mën nañoo wax ni carrément màgg na ci làmb expérience am euh, voilà. waaw loolu mooy li ma xamal boo ne bu jógee face pression te fa la daanoo yooyu yooyu jël ngay wax n'est-ce pas donc kon du génn bi sos leneen day xëy na day wàññi sax pression donc bu ñëwee par rapport à ce ma wax ko waxuma ko keneen wax ko ñëpp xam nañu expérience ci côté Passaw la nekk jeunesse bi ci cité la nekk Passaw moo war a def li mu war a def ba bëreeg moom ci li mu ko magee ci bëre loolu mooy. non bu doon Passe war na génne équipe Passe Passe c'est le lutteur seul lutteur de Passe bu juddoo Passe musul bëgg génn équipe Passe cest dire xam nga c'est l'occasion qui fait le larron mais bu doon moom rek du génn équipe Passe <coughs> jox nañ ko lettre il l'a lu peut-être il a pensé que ne moom su defee croix jox leen ko dañ ko koy delloo woo ko ndeke du woon loolu mu am ci xëy na incompréhension boobu loolu la mais bu doon moom la du ngeen écrire face non c'est pas xam nga mieux vaut tard que jamais lu jot rek yomb. Ah, relation personnelle ak waa face bon moom moo koy dox man xaw ma ma relation yi ma amoon ak ñëpp moom laay garder ak ñëpp. c'est-à-dire euh, respect moo am solo ñeme ma ñeme par exemple si je prends le cas de du président Abbas Abbas Ndoye mais ñeme wax ne Abbas beneen moo budul Abbas nit ku baax loola moon ñeme wax beneen moo ci mbay lu nit ku baax loola moon mais le am na commentaire yoo parce que maa su man maa man maa sut loolu sut a saa yu waxee waxu Fass muy Papa muy encadrement bu bees bi da leen di jël ak cœur réponse bi sax dañuy sentir nii dañ di répondre avec le kër métti na leen face bi indi mais est-ce boo leen ko jiitalee tout le temps di préparer combat bu mag bis bu mag mu nekk loo xamante ne car euh, déterminant la ci carrière Papa xam nga bu soo waxee ne buggul woon génn après nga ne génn bi naxarew ma kon du am sens c'est parce que nee nga buggoo woon génn dàq nañ la neexu la loolu mooy logique foofu la ñuy waxee mais du parce que dañ ci am noonu noonu non non man Abbas vraiment ay Thierno Tra mais ñoom ñëpp nous avons de très très bonnes relations yi moom laa amal ak ñoom et je garderai ces relations là tu man du ma wax lu ma gëmul du ma def lu ma gëmul lu ma gëmul ñaari teel laa juddoo màggee ñaari teel ba toll ni ma toll parce que walda ak day bay xàmmeewuma ci benn boo ma jox ma ci père ba ñu <coughs> dugal sa loxo ci biir Fass dañ leen jàppale parce que ku mel ne Papa Sow cité na ko koro ci combat Gris Bordeaux Balla Gaye wax na jàppale yoo ko doon jàppale Papa Sow génn Fass créé boppam ndax da nga daan jàppale waa Fass da nga koy def wala da ngay ñibbi sa kër benn yoon loolu daal je préfère man su may jàppale koo mën a jàppale ci àddina yàlla moo tax ma koy def duwut tur duwut nangam duwut nangam loolu moom je préfère ne pas bu ngeen xoolee ci euh, bantamba bi passé bi ngeen ci gis mbëru paas mu ngi sama kër loolu jumbi doy na doy na borom xel bu ngeen xoolee bantamba bi di ngeen ci gis mbiru faas mbëru faas mu ngi sama kër samay doom lañu daful affaire écurie samay doom lañu euh, amul pression ci ñi lay dal pression day dal ku un bleu day dal un poltron xam nga euh, la couardisme est une maladie qui ne se jamais mais bu nekkee bañkat nga xeex xeexkat nga génnee nga yooyu moom vraiment du ay ay il viendra mais mais très relax bëri li muy bëri dañ ñaan yàlla yàlla mi joxe ndam yàlla may ko ndam muy demaat suba euh, war a jàkkaarloo ki nga xamante ne moom mooy Siteu mobilisation bi nan ngeen koy waajalee déjà parcelle nekk ci ginnaawam loolu nan ngeen di waajalee mobilisation bi. ah ñun parce que xam nga Pa Abdou Fall si ñoo dëkk suñu la am noo xam du ko tëgg ba pare ñu bëgg toog naan ay jël nañ xaalis danañ toog duñ non on va faire le maximum pour demain nit ñi ñëw en masse ñëw foofu mais pour mu nekk spectacle parce que nag en attendant ci li xew Papa Sow Siteu la moo fi affiche bu mag leneen amu fi mm-hmm. ci li ñu li wóoragum Papa Sow ak Siteu ñoo fi moo fi nekk affiche donc il faudrait que suñu côté ñun ñu xataraayu def le maximum mais pour liñ ci liñ ci war a def ñu def ko loolu mooy yoon boo ko séqee ak sa nawle bu defee li mu war a def da nga war a góor góorgóorlu yow sa kéemtalaay kàttan jéem a def li nga war a def on va faire le maximum on donne rendez-vous à tout le monde demain suñu soppe Passo soppe Sitaak ñi bëgg làmb yëpp ñi bëgg Pape Abdou Fall ñëw stade euh, demain mais dans la discipline def li ñu war a def ñëpp après ñibbi parce que ñu jëm arène nationale te ku ne xam ne fi làmb toll soxla na mobilisation mais soxlawul violence ki ko tëgg di promoteur boo xam ne ku exemplaire la ku mën di kuy dox social làmb ban message ngay lancé ci ñaari cas yi ndax arène nationale gis na dimanche pale passé la fa xew ban message ngay lancé ci ñaari cas yi waaw xam nga nationale moom même bu nekkoon amul sax barrière acteurs yi bu ñu normalé rek dara du fa am même sans force de l'ordre cest à ñoo war a discipliner mbër yeeg encadrement yeeg euh, ñëpp waa ñuy tourné autour ci euh, euh, ci ci ci làmb li ñuy wax rek mooy muy sunu camp muy camp Siteu ñun paaso kenn musu ko dégg événement boo am ay histoire il viendra à l'heure def li muy def dans le respect ñuy ñaan képp ku ku fa ñëw nga bokk ak paasoo mbaa nga bokk seen mbaa nga nekk keneen lii lii discipline daal la ñuy laaj ko ñëpp na ñëpp am discipline bon ñu def ko ci fair play pare préparé nag le cinq avril incha allah. papa écrit bu bees nan la nar a dugg ci làmb entraînement lan la war a indi lu muy xaar ci papa comme bi ko sottee bu njëkk. lu muy indi paase lu muy lim xanaa ah, yow tamit loolu moom li mu daa indi lay indi rek buy tëgg 5-5 koy tëggal ñu ko doon tëggal ñoom ñoo koy tëggalaat Cheikh Ndiaye mooy manager ñun bàyyiwuñu dañ ñoo dàq kon képp ku ku ñu àndaloon te nga bëgg ànd ñu dañuy àndaat yow bu ñu bàyyi woon dañuy créer mais dañ ñoo dàq. mais bu ñu dàqee nag ku bëgg a ak ñun ci ñi ñu àndaloon mais dañuy kon ne ànd. 5 5 mooy 5 5 5 5 mooy tëgal. biir wax bi nee na bàyyi wala a mais équipe bu amee beneen mbir boo xamante ni bëgg nañ seen combat ak waa Fass dinañ bëre wala déet. waaw yow yow loolu koy xam nga na na Pape di avance léegi nga xool <laughs> man damay dama la café sax Pape yoo xam ne. Mm. ku ma fay millions yu bëri sax ma bëreeg sama Pape. Eh. damay café damay café damay café loolu. c'est-à-dire bokkatuñu dara rien na lu lii absolument rien je dis absolument rien ak Fass absolument rien dégg nga li wax dama bëgg nag nga nga nga xalaat li ma wax sax ay foo ko indi rek foo ko teg dugal ko foofu foo ko teg absolument rien waaw soo sax mën na bëri waa Fass. wax ku nekk plus Papa Sow mën na bëri waa Fass. waaye ah, déggul ma xaw ma surtout ma Papa Sow mën na bëri waa Fass. père ba suba première sortie est-ce que sañ-sañ dina ñëw. waaw comme wax nañ ko fii waxaguñ leen ko mais on va faire indi sañ-sañ ñëw suba ah il faut il faut euh, waxaguñ leen ko mais danañ fexe. comme noonu la tool il faut ñu ñu ñëw. merci euh, ñu gis ne ginnaaw Papa Sow écurie bu bees bi mu sos keroog ba mu koy sos gis nañ mel ne Modou Lo le roi des arènes ñëw ko tey Modou Lo nan ngeen nar a nekk ak moom biir parcelle. ànd di entraîné waa ni ñoom entraîné. Mhm. faral ko ci kaw ci suuf ci biir ak partout. ñaan ko yàlla combat bi mu jëm yàlla may ko ndam. Mhm. Modou mooy Papa Sow Papa Sow mooy Modou. mais père ba dañoo gis ni seen problème ak waa lu bari Modou suñu juumu si ndax depuis combat am ak ki nga xamante ne moom mooy Gris si la affaire yi am léegi après ngeen ne pare ngeen tamit pour ànd ak man kon est ce que nekkul beru bi ngeen beru tamit leen Modou kii tamit amul dara lu mu leen kii. lu beru. Modou Lo. mën nañoo wax ni seen dàq bi ngeen dàq waa Fass. waaw moom moo ko indi ndax combat ak Gris Bordeaux que le meilleur boobu noonu. après tamit ngeen beruwaat ne pare ngeen pour faral muuru kaw ak suuf kon li ngeen waxoon démb ak bëkki démb ba léegi jugoo wala ah duñ ci jóg ciment euh, euh, ciment benn lay tooy Modou à vie moom la ñu faral ku muy bëreel moom lañu ñu faral c'est waa Fass moom Modou la ñu faral. boo leen bëree la ñu faral c'est clair.